c'est bon on peut démarrer waaw asalaamaaleykum euh, ñu ngi leen di nuyu fii dañ fi daje tey ci turu ministre Thierno Alassane Sall mi nga xam ni mooy ministre de l'énergie et du développement des énergies renouvelables di coordonnateur des cadres donc du parti APR mais également également am de nouvelles responsabilités Euh, yu ko président confirmé muy mu nekk coordonnateur de la commune pour le parti APR. lii nag di action boo xam ne nii tu commencé wu ko ren ni mu nekkee sur le terrain politique di def des actions de développement des actions pour appuyer les populations des actions très sociales à dimension sociale élevée ci cadre boobu la ñu def tey ndaje bi comme niñ ko daan defee at bu nekk di ko def ci màggalu Touba di ko def également ci ci lu mel ni gàmmu bi nga xam ni euh, jullit yu bëri ñooy jaar fii di dem Tivaouane ak yeneen gox pour dem gàmmu ji ñu di ko def nag dans le cadre de euh, ces actions sociales mais di appuyer ci force bi nga xam ni moom mooy force bu ñëpp reconnaître muy la jeunesse euh, bu ngeen xoolee ñi ma wër nii ñëpp c'est la force d'avant-garde du parti muy les jeunes sous la coordination de Massamba Diop ak ñoom Rijal ak ñoom Abdou Fall Mama Diatta tous les autres jeunes yi nga xam ni ñi ngi ci zone bi di ci yëngutu ñoom donc ñoo jël initiative bu rafet bi di ko def sous la de monsieur le ministre tey nag ñu ñëwoon fi ñun appuyer si leen kii ci sama gauche mooy monsieur Fallou Manam Diène di chef de cabinet wu ministre bi à ma droite di inspecteur Moussa Fall moom mi nga xam ne aussi c'est un grand responsable du partie un grand responsable du système éducatif donc ñooñu ñooy ñi ma xam ne ñoom la àndal ak d'autres autres responsables pour ñëw ànd si ak jeunes yi communier ak ñoom appuyer leen pour wan leen ni lii ñuy def ñun ñoo ci ànd ak ñoom te lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu agréé la action yoo xam ni la yu ñu rafetlu la ñu yu ñuy porte la te di leen ñaaxit ci ñu continuer ci liggéey bu mel nii liggéey bi c'est extrêmement important que ñu koy def di ko gën a élargir dans le cadre de Benno Bokk Yaakaar ndax le président moom mooy président wu Benno Bokk Yaakaar directive yi mu joxe te war ko appliquer fépp mooy action yi ñuy def non seulement au niveau du parti nañ unifier les efforts unifier les sensibilités mais nañ gën a ouvrir vers les autres alliés de Benno Bokk Yaakaar pour que lu ñuy def ñu ànd ñun ñëpp ñu def ko dans la plus grande cordialité loolu euh, ci gàttal mooy li nga xam ne moo ñuy fi dajale tey jii ñuy gërëm ñëpp di leen sant euh, wasalaamualeykum wa rahmatullah waaw jërëjëf Babacar effectivement du du du action yoo xam ne ci bis bu mel nii rek la yem ndax je pense que suñu particularité mooy ñun depuis toujours nous sommes tout le temps dans la base éparpillé nag dans Thiès je pense que lu ñu gën a reproché ci commune ci ci ci ci suñu doxalin mooy euh, manque de communication mais c'est des actions que nous déployons tout le temps nous avons fait des actions envers la jeunesse le monde sportif en distribuant des ballons à l'ensemble des ASC Nous nous apprêtons à le faire également pour joxe ay maillots à l'ensemble des ASC. Je pense qu'on a commencé le travail avec l'ODECAV et bientôt dinañ ci di ngeen ci gis dara. On fait la même chose pour les fournitures scolaires. Dans la semaine euh, cette semaine si ou le, le week-end prochain ñu ngi bëgg a distribuer aussi un bon une bonne quantité de fournitures scolaires yu ñu pour les écoles de la commune. Il y a eu d'autres actions je crois que Babacar fekk nga au niveau des appuis qu'on a pour les écoles également doter leen de matériel informatique la case des tout petits on a doté également de d'une vingtaine de tablettes avec du matériel de reprographie donc c'est des choses que nous faisons tous les jours je ne parle pas de des autres actions que nous faisons envers les femmes parce que nous comptons énormément de groupement de femmes au niveau de Thiès yoo xam ne appuyé nañ leen je pense que euh, ministre Alassane collé nañ ko étiquette u Léguette son nom est associé au Léguette parce que partout dans Thiès, dans tous les coins de Thiès, nous avons distribué à des groupements de femmes de petites enveloppes yu ñu def ci seen leget di ko tourner ci seen biir je pense que loo xam ne la dinañ ci dem évaluation pour nit ñi xam loolu ban portée la am ak quels sont les résultats yu mu produire. Euh, couverture énergétique bi pour euh, gàmmu gi apparemment euh, les chefs religieux là ñoom ñëpp ñu ngi apprécier ban dispositif ngeen jël par rapport ak gàmmu gi. waaw saa aussi indi nañ ci une touche particulière touche particulière bi comme ni ñu koy waxee au niveau du management de du ministère foofu lañu commencé rupture bi li ñu njëkk a wax mooy le métier nañ ko bàyyi ak ingénieurs yi. nekkatul un département ministériel boo xam ni dañuy toog di décider à la place des autres di décider ci li ingénieurs yi war a def di leen wax fan la ñu war a tirer fil wala nan lañu ñu war a dimensionner ab poste électrique mais li ñu leen di wax mooy le travail lii la ñu war a def ñoom ñu dem wax nan lañ koy defee il fois ñu wax ko nag suñ responsabilité la ñun ñu jóg jël moyens yi ak encadre leen ak appuyer leen pour ñu def je pense que dégg nga dem témoignage yu famille Ndiéguène euh, mais li ci am rek mooy effectivement bi lettre bi ñëwee ñu xool li nga xam ne mooy expression besoin bi transmettre nañ ko Sénélec bàyyi leen nag ñoom ñi nga xam ne c'est les spécialistes ñu xalaat loolu nan lañ ko mën a réaliser. je pense que un peu partout loolu moo indi aussi résultat yi nga xam ne am nañ ko dans le secteur. nit ñëpp sentir ni quand même aspect énergétique bi amélioré wu na lu baax a baax a baax amaguñ nag satisfaction ndax comme ni ma ko waxee. accès universel moom mooy sunu euh, objectif bi ñu président de la république assigné maanaam mooy fu sénégalais nekk energi nekk ci àgg ci moom mais àgg bi aussi comme nu ma koy waxee du rek àggub énergie bi ñëw na ba agsi bu fekkee nit ki amul ci poosam lu tax mu mën cee agsi accès boobu dina des kon loolu yëpp ñu ngi ciy travailler je pense que lu ngeen teg bët la lu ñëpp teg bët la que l' aspect énergétique aujourd'hui surtout la laspe électricité gën na amélioré wu bu baax a baax te ñu ngi ci gën a liggéey pour mu gën a yaatu. c'est une question d' actualité le préfet confirmé na ne léegi à partir de mardi 19 commissions pour jënd si carte euh, électorale carte d' identité yi. Mhm. dinañ fonctionnel dans le département de Thiès. Mhm. est ce que mais boobu léegi dañu sentiragul politique yi ak seen pour dem. donc mhm. les citoyens lambda ñooy ñëw di fanaan pour am seen euh, carte d'identité lan moo si passé na doon seen taxawaay. en fait loolu mooy tra mooy traduire aussi le travail que les politiques ont fait parce que loolu ñoom ñoo sensibiliser nit ñi ba nit ñi ñëw je pense que les politiques comme nous autres mënuñu dem fanaani espace jeune ñu fay fanaan mooy ña ngay gis foofu les populations. bon c'est vrai que c'est un système loo xam ni la lu lu lu lu xaw a complexe la ndax dañuy euh, mettre à plat le fichier maam dañuy départ ci kenn amatul carte kenn amatul. kenn nekkatul électeur ñu recommencer à zéro donc ñëpp war a dem bindu ji waat loolu nag li mu laaj ci logistique dafa xaw a bari parce que bu ñu bëggee inscrir fii ak mois lu toll ci cinq millions ba six ba sept millions de de personnes loo xam ni la lu lu important la lu laaj logistique bu rëy rëy la. c'est vrai que commission yi ñu comme ni ko ñëpp constaté bi mu démarré metti na torop parce que doyuñu président de la république jël na une décision a salué bi mu rencontré les leaders de l'opposition à savoir porter le nombre de commissions sur l'étendue du territoire national à 700 loolu dina tax yëf fi gën a féex ba nit ñi mën a dem inscrire en masse je pense que lu important la la décision de de de refondre le fichier électoral de réinscrire nit ñi je pense que ku ci def analyse bu ndaw rek di nga xam ni lu important la ndax fichier bi fi nekkoon traduirul exactement les électeurs maanaam li ma bëgg a wax mooy bari na lu ci nekkoon loo xam ne mat ëppoon na 2 millions de personnes ba 3 millions yoo xam ne ou ñu faatu lañu wala ñoo xam ne nii defuñu seen bopp ay bi ñuy wut carte d'identité lañ leen wax ni rek dañu leen di bindaale nekk kii te ñoom décidé luñ ko seen bopp donc ñooñu duñu ay électeurs système mu état civil Sénégal aussi ni muy doxee dafa dafa demee noo xam ni wu ñu lépp ba nga xam ni fu nit faatoo ñu mën ko transcrire directement parce que nit ñi amuñu culture di def ay déclaration de décès bu la bu ñu ko defee ba am papier bi duñ dem yóbbu ko fañ ko war a yóbbu pour ñu mettre à jour le registre d'état civil bu ñu mën a jógee foofu maintenant mettre à jour le fichier électoral lool moo tax le fichier di am un stock mort donc décision bi je pense que lu important lay doon bu ñu ci génnee dinañ mën a xam ñaata lañu am ci ay électeurs yu yu réel et bu boobaa ay taux de participation yi ñuy wax ak yooyu yëpp dinañ mën am ay taux yoo xam ne dina gën a jige réalité kon li muy wax amatul lay élection moom ay léyoon mais comme ni ko président de la république waxee le 2 juillet incha allah dina am te ñun ñu ngi ciy préparé wu xaar ñu sax refonte bi je pense que sur l' ancien fichier fekkoon na ñun ñu préparé wu ba inscrire woon énormément de personnes donc bay boo ñëpp préparé wu takkuwaat te xam ni élection yi ñu ñëw et que tout le monde se mobilise pour inscrire le maximum de personnes. pour que ñu mën a am des élections libres transparentes. mais li ñu gis démb gëj na am ah Thierno Sall Augustin ak tout le Benno ànd dem euh, ziar euh, loolu lan lay firnde. waaw loo xam ne la aussi c'est à saluer je pense que depuis toujours nit ñi di ñu wax dem leen ci Benno démb wax naa ko ci benn kër sëriñ bu ñu demoon ni yàlla suñu borom daf ñu digal ñu ànd mais yemul ci loolu dañu koo digal ci même aaya bi mu tere ñu ñu taxali ko kon loolu. loo xam ne la xëy na daboon nañu mais ñun ku ñu xam ku ñu xam-xam nañ ni du ñu nit ñoo xam ni ñuy farfarloo lañu wala ñuy dem ci ay yëfi division wala ci ay clan lu ñu dab la nag ndax yëf yi moo demee woon noonu ci politique mais amuñoo kenn mu suñoo teg posé benn acte boo xam ne dafa jëm ci suñu benn partisan suñu moroom sunu benn camarade de parti boo xam ne lu ñu ñaawlu la je pense que loolu presse mën na ko témoigner. xanaa nag yàlla dimbali nañu ba ñu réaliser unité boobu avec l' implication chef de l' que bu ku nekk. dugalee sa yéene def ci sa xol yàlla dinañu jàppale parce que ci bennoo ci lañ mën a amee liñ bëgg. merci en français monsieur Mbaye dans quel cadre enrichissement ces activités euh, en ce jour de Gamou on se rappelle quand même lors du Magal Massamba et toute l'équipe euh, de Thierno Alassane Sall avait érigé une tente pareille au niveau des champs de